mbokki Sénégal dama yàgg dégg ci réew mi ñu ne yenn ci way politik yi jàppewuñu askan wi ay nit waaye loolu man gëm naa ko li tax mooy dama seetaan benn video bu Macky Sall def appel vidéo mooy campagne bi Macky di campagne di woote ay appel vidéo dama ci seetaan benn vidéo Macky Sall di ci wax ne li tax mu nangoo nekk tête de takk wàllu Sénégal mooy pour redresser senegal maanaam pour jubbanti senegal ci gàttal pour daal jafe-jafe yi nga xam ne moom la Sénégal nekkee senegal nekk génn senegal génn ci yooyu jafe-jafe mbokk yi est-ce loolu war naa am benn sénégalais bu nekk ci réew mi war ko gëm est-ce que am na benn sénégalais bu nekk ci réew mi war ko gëm ndax lii sax dafa bokk ci ñàkk respecté askanu Sénégal lii mooy jàppee askan wi ay balla puy na maanaam jàppee leen ay xar jàppee leen ay nit ñu jëmul fenn ndax Macky Sall nan la mën a defee ci boppu réewum senegal fukki at ak ñaar ñu dénk ko réew mi ñu dénk ko réew mi waxuma la ni mu yore woon réew mi waaye rek ñu wax lu méngoo ak élection yi ñu nekk muy élection législative Macky Sall am ay yoon yoon majorité assemblée nationale ñu indil ko ay proposition de loi yu dul jeex Macky Sall ak ñimu àndal traité wuñu ko yi ñu jël ko sànni ko ca àll ba bu député yi bokk ci opposition bi defee ay question orale ngir xam ni ñu yoree alalu réew mi kenn mësu leen faale waa léegi Macky moo dénk senegal douze ans ñépp gis li xew ci réew mi Macky Sall jóge ci bopp réew mi même pas juróom benn weer ne léegi dama bëgg ngeen jox ma assemblée nationale ngir ma liggéey Sénégal ngir ma jubbante Sénégal ngir ma génn leen Sénégal yi seeni jafe-jafe yow waxuma la assemblée nationale assambale nationale waxuma ko waaye réew mi lañ la dénkoon lijjante woo jafe-jafe askanu Sénégal ci fukki at ak ñaar nan nga ko mën lijjante ci juróom benn weer yoo xam ne assambale nationale nga ko bëgg a jaarale loolu est-ce que yenu na maanaa est-ce que nit tamit war na jàkkarloo ak ay moroomi gorom di leen wax kàddu yu mel nii Macky Sall amul droit amul sañ-sañ jàkkaarloog Sénégal yi naan leen dama bëgg dama nekk tête lis liste ci élection législative yi ngir bëgg redresser senegal yow ñi la wuutu saytoo guñ ni nga yore woon réew mi saytu gi jeexagut nga bëgg ñëw ne assemblée nationale laa bëgg ngeen joxuma ko ngir ma saafara jafe-jafe réew mi yaa xayti boo ko mënta saafara ci fukki at ñaar nan nga ko mën a saafara ci juróom benn weer lii mooy ñàkk respecte askanu Sénégal juróom fukki at ñaar yi nga xam ne yaa ko jiite Sénégal Macky Sall liñ fi bàyyi ci ay njublang ci ay scandale ak ni ñu saax-saaxee alalu réew mi ni ñu fowee alalu réew mi ni ñu fowee suufu askan bi suuf si nga xam ne askan wee ko bokk ñu pasar pasaree ko président Macky fukki at ak ñaar yi ban secteur nga fi lijjanti li nga xam ne mooy accord de peche yi nga bàyyi nangoo signé ay accord de pêche ak union européenne ak Chine ak Russie ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy nappkat yi xam ne ëpp na juróomi junni ci nappkat ci Sénégal xam ne tumuranke nañ ndax accord de pêche yi ba ñu bari di jël gaal gi tey ma dégg yéen ngeen bëgg a taxaw ne dëkk bi dafa metti xale yaa ngi jël gaal gi loolu mooy fowee xelu askanu senegal ndax xam ngeen ne jafe-jafe yi fi ngeen ko bàyyi Macky la xale yi jël gaal gi fi ngeen ko bàyyi ndax yéen a tay la géej gi tay la baykat yi gën a am ay jafe-jafe Macky Sall tay la askanu senegal gën a am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum fajo gi fi ngeen ko bàyyi douze ans yépp li fi nekk jamono jii bu doon ak toggu la man a yéen a ko togg yéen a ko yàq ñii ñu dénk réew mi dañuy saytu li ngeen yàq baax na wala baaxul te xam nañ ne baaxut ndax ñoom amaguñu budget mënuguñoo voté benn am mënuñoo dugal benn proposition de loi mënuñoo dugal benn projet de loi mënuñoo def yenn réforme voté guñ leen voté la guñ leen budget joxe maanaam bu doonoon kër la ñu la joxaguñ leen dépense ñuy saytu ni nga xam ne Macky Sall moom nga yore woon réew mi tey nga toog ci diwaanu Maroc ne dama bëgg a gagné assemblée nationale ngir jubbante Sénégal Sénégal boo ko bëggoon a jubbanti ci fukki at ak ñaar yi ñu la ko dénkoon ci nga koy jubbanti ci ak njub ci ak leeraange mais dara amu ci woon xoolal li xew AIBD aéroport international Blaise Diagne xoolal li xew SN HLM xoolal xew ci ministère des sport xoolali xew LONASE xoolal li xew fii ak fii ak fii ak fii ak fii kenn du fi nekk di ko lim kon président makisal Sall sénégalais yi si boppam ñoo war a am xel li yàlla sunu boroom wax ne man boroom xel yi laay waxal waaye président makisal Sall yow yaa ngi jàpp sénégalais yi maanaam ay naxa-naxa ay nit ñu tekkiwul dara ci réew mi ay bàyyi ay ñoo xam ne ay xar mbee mbee ñuy ñaxal xam nga ne yow buñ la dénkee réew mi fukki at ak ñaar Sénégal yi nekk ci tumuranke xaalisu covid 19 bi jafe-jafe yi Sénégal dund yépp Macky Sall tey nga dem fukki at ak nga dem juróom benn weer rekk nga toog Maroc ne danga bëgg lijjanti réew mi ndax senegal dafa metti senegal bu mettee kan moo leen teg métit bi ku dul yow yaa leen ko yaa yaa teg senegal yi métit bi nga xam ne moom la ñu amee jamono ji waaye nag senegal yàlla dafa def am ñoo xam ne jëfandikoo wuñ seen xel yi am na senegal yuy jëfandikoo seen xel yi waaye am na ñoo xam ne ay xelu naxa naxa lañ yor ñoo xam ne seen xel yi kupp moo ci nekk te Macky sàll ci boppam xam na ne am na sénégalais yoo xam ne seen xel yi kopp moo ci nekk waaye moom ci boppam moom Macky Sall fi mu toog ak Marème fay Sall leer na leen leeru yàlla ne leer na leen leeru yàlla ne li tax ñuy laaj assemblée nationale ak li Macky sàll nekk tedd liste xam na ne munta nekk tedd liste rek wala assemblée nationale rek ngir jubbanti réew mi su bëggoon a jubbanti réew mi da koy lijjanti da koy jubbante ji jamono jiñ ko dénkee réew mi xam ne moom moo amoon majorité assemblée nationale 12 ans yépp Macky Sall am majorité assemblée nationale Macky Sall 12 ans yépp moo am majorité assemblée nationale waa 12 ans yow loo si lijjantiwut en tant que président en tant que ku yilif euh, assemblée nationale yow léegi nan nga mën a toogee Maroc ne léegi man daal damaa jiite ab liste ngir daal régler réew mi Sénégal yi